jamono bu ñu nekk nii. li ñu war a wax te li ñu war a wax. mooy naka nañuy def ba population bi jeunesse bi. Mm. parce que comme li Tande Diop wax dama koy rejoindre euh, entité sociale. Mm-hmm. jigéen na ko yor ak xale. Mm-hmm. parce que xale mooy doon mag ëllëg. moom nag féministes yi nañu basé wu ci jigéen ñi jàppale jigéen ñi ba pare nag jàppale ndaw ñi. Mm-hmm. parce que ndaw ñi dañoo bëri macha allah te sësuwuñu ci leen. bon nag nañu jàppale gouvernement bi mu liggéey waaye. waaw ñu jàppale leen ñu liggéey. waaw d'accord mais mais tey euh, soxna Fatou Bintou euh, bon loolu xam naa yéen a koy gën a xam. yéen yaa Seydaay parce que tey moom plateau bi macha allah dafa taareel dafa taaru lool dóor waar. <laughs> moom plateau bu mucc ayib la am macha parce que daal xam naa ni euh, lii daal moom mooy Sénégal te xam naa ni lii war nañ ko gën a yaatal. su ko defee ñu xam dëgg-dëgg suñu ay valeur ak naka la ñu war a comporter mais tey suñu borom ni mu bindee ni mu bind jigéen. ak ni mu ko mooñaale est-ce que jàpp nga ni aussi tamit euh, tey bu ñu respecté parité jox leen yenn liggéey du mën a am sooxe parce que am na loo xam ni suñ borom noonu la ko noonu la ko mooñaale euh, moom bi nga xam ni moom mooy jigéen gi macha allah yàlla moom dafa jox euh, jigéen valeur boo xamante ne jox ko kenn ci àdduna parce que malgré ñun seen faar nañu jóge mm-hmm. mais comme li ñuy wax rek derrière un grand homme. Mm. yaa a toujours une grande dame. parce que jigéen xelam macha allah euh, gis-gisam ñun dañuy gis loo xamante ne daanakaam yéen góor ñi doo leen ko gis. Mm-hmm. mais bu ñu leen ko waxee rek après ngeen di xam. moo tax jigéen dafa féministe yi li ñu war a gëstu li ñu war a def defuñu ko parce que waroon nañu gën a jàppale nguur bi au lieu ñuy wax parité parité parité te comme li ñuy wax rek. jigéen mooy jur. Mhm. mais ci ban anam nga yaakaar ni ñoom war nañ ci mën a jàppale parce que ñoom dañu yaakaar ni war nañ ci gouvernement bi la ñu war a mën a dugg pour xëy jàppale nguur gi mais yow ci ban anam nga jàpp ni moom daañ ñoom daañ ci mën a jàppale euh, tey nguur gi te du indi benn jafe-jafe. mais c'est pas parce que ne ministère ministre yi nekk la majeure partie nekkuñu jigéen mënuñu leen jàppale. y a d'autres y a anam am na anam yu bëri bëri bëri yoo xamante ne féministes yi mën nañ ci dugg jàppale nguur bi ci éducation bi parce que jamono bi ñu nekk gis nañu suñu société bi dafa am dévalo dévalorisation de de des des mentalités dévalorisation des sociales am na yu bëri féministes yi war nañ ci gëstu. Mm-hmm. macha allah jàppale gouvernement bi. moo gën ñu bëgg a dugg ci ministère ministre ministre ministre. c'est bien boo mm-hmm. mais am na leneen nax leneen lu ñu war a liggéey. lu am solo sax. lu am solo waaw d'accord dina am am na solo Ami Ami Diagne Jamra soxna bi euh, tey boo xoolee ñun suñu société dafa am nu mu nu bindoo. Mhm. Euh, booy xool ñun li ñu yàggoon a mooy. Euh, góor mooy xëy uti. Mhm. soxna yi toog ci kër gi yar njaboot gi ak xale yi. Mhm. léegi boo xoolee mbedd mi presque presque mën nañu wax que ni tasaaroo na. Mhm. Euh, li ngay dégg ñu koy def lépp ci ñaawteef ay xale yu góor sama moroom ñoo koy def te ñooñu tey suñu yaay yi ñoo waroon a toog assurer li nga xam ni moom moo ni seen ay éducation est-ce que jàppoon ni ñoom euh, ñiy woowee seen bopp ay féministes dañu raté. par exemple ñoom li ñuy waroon a fi ñu waroon liggéey réew parce que liggéey réew mi nekkul rek ci dugg ci ci biir gouvernement. est-ce que dañu jàppoon xëy ñoom seen base li ñu waroon a liggéeyale réew mi dëgg-dëgg au lieu que ñuy taxaw fii di wax kan yi dañu war a respecter parité ak yu ni mel. waa bisimilah maa ngi lay nuyuwaat di du ñëpp waa mais man euh, sama xalaat bu gàtt euh, ay waxu nekk fi di kaas euh, kaas parité bi sax pour man dafa xaw a nekk gàtt xel daal. parce que par exemple parité boo defee dix ministres góor da nga war a def dix ministre jigéen. Mm -hmm. mais est-ce que foofu lañ ko soxla pour man fi ñu ko soxla mooy mënin gi mhm. ku nekk place bi ñu lay jox nga mën ko mhm. liggéey bi ñu lay jox nga mën ko def comme niñ la ko waxee mhm. euh, parité parité parité man niñ koy waxee niñ koy kaasee dañoo war a égalité je ne pas man gisee wu ko noonu man franchement man gisee wu ko noonu ku nekk daal liñ la jox bu dee yow mën nga ko nga def ko peut jigéen ñi ñu ci jox ñoom loolu lañ mën ñu jox leen ko góor yi ñu ko jox góor yeneen góor yi ñu jox tamit ñoom liñ mën mm. dañ leen koo jox ñu def ko euh, man daal parité niñ koy gisee daal man gisee wu ma ko noonu waa gisee wu ko noonu daal waa c'est pas d'accord ci parité waa waa d'accord ma ci mm. euh, jigéen tamit certes baax na tamit ñu toog kër ga mais man toog kër bañ a liggéey wala nga dem liggéey nga nga toog kër ga ñuy naan ci nga mën a jaaree pour yar sa doom man dañuy ñun dañuy liggéey mm-hmm. mais pourtant ñoo ngi liggéey mais ñoo ngi yar suñu doom mën nga nekk jigéen toog kër ga tamit liggéeyoo te alors que yow li nga bëgg sa njaboot wala yow li la wàcc sa njaboot yar ngi leen war a jox doo ko def mm-hmm. ba xam ndax comprendre nga fi may waxee am mm-hmm. déet waa kon ñoom ni ñuy wax parité ko gouvernement bi ni mu tëggee ki man daal loolu waa d'accorduma si ñoom daal ñu koy d' accord d' accord euh, rox soo na roxee euh, yow naka nga gis ak lan mooy sa kàddu ci euh, attaque bi nga xam ne ñoom def nañu ko ñoom soxna yooyu di wooy seen bopp ci mbirum parité maanaam nañu respecté benn góor benn jigéen ci biir gouvernement bi alhamdulilah ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di nuyuwaat ñi ma hmm. wax ni féministe yi peut-être loolu seen euh, seen point de vue la. Mhm. mais ku ci nekk booy booy kaasal sa réew. dangay xool valeur yi nga xamante ne sa réew moom la moom lay moom lay prôné mënoo indi dara ci à l'étranger wala feneen. Mhm. nga indi ko imposer ñu ko. Mhm. donc loolu duñ ko nangu. donc euh, question de parité boobu ñuy wax euh, ñu bëgg a def cinquante cinquante loolu gis naa ni c'est impossible. damay rejoindre sama Yaceda muy wax ne compétence lañu gën a soxla que. parité boobu ñooy égal égal égal loolu dafa mënta ne. Hmm. déjà góor ak jigéen kese yemuñu mënuñu yem. Hmm. suñu responsabilité ñun en tant que femme rek doy nañu doy nañu sëkk. Hmm. donc ñoom fu ñu war a intervenir ci société bi mooy lu société bi soxla dëgg dëgg dëgg mais pas ay détails ay parité soxlawuñu ko on n'a pas besoin de ça. bëri na fi ay intellectuels yoo xamante ni ñu bon bëri na fi ay intellectuels yoo xamante ni ñu ngi toog seen am nañ compétence mais ñu ngi développé seen côté ñu ngi développé te entrepreneuriat féminin yi ñu ngi ci yëngu pourquoi pas ñoom bu ñu ñëwee ñu xool seen société li nga xamante ne moom la gën a soxla ñu yëngu ñu yëngu euh, ñu yëngu ci côté boobu donc ñun foofu lañ leen di xaaree parce que ñoom elles se disent intellectuelles elles se disent intellectuelles kon war nañ gën a seen esprit seen mentalité war na dépasser loolu mm-hmm. donc c'est pas des détails yoo xamante ni feneen di ko ni ñu ko imposer nañu def mm, yéen en tant que journaliste essayer de faire benn micro trottoir di ngeen gis ni la population n'a pas besoin de ça mhm. ñu ko donc ñu ci idée boobu non non non ñun en tant que femme daal nous ne sommes pas d'accord compétence ku ci nekk mhm. poste bu ñu la teg na nga ko mérito mhm. nañ ko mérito heureusement que bon yàlla na bu yaakaar tas am nañ yaakaar ci gouvernement bi nga xamante kii nañ parce que comme ni ma déggee yenn rumeur yi dañuy naan man maa ko doon jàppale bi muy def bi mu nekkee bi mu nekkulee dara ba mu dem ba jël nguur lu tax jëluñu post bi heureusement que am na éveil boobu avec le gouvernement aussi gis nañ ci changement. Mm-hmm. donc euh, sama xalaat ci parité bi loolu la. Mm-hmm. effectivement am na am na am na solo yaa Seyda mm-hmm. euh, est-ce que jàppoo ni bon euh, tey ñooñu nga xam ne ñu ngi woy seen ay bopp féministe. Euh, di taxaw di yuuxu fu ci nekk te booy xool sax la majorité en tout cas ñi nga xam ni ay soxna lañ nekk ci réew mi pourtant ànd nañu ak ñoom est-ce boo xam ni euh, moom la ñuy utiliser pour di ci làqati seen ay soxla rawatina ci mbiru genre bi nga xam ni euh, gis nañu en tout cas ñoom des fois taxawaay yi ci am ak bëgg koo bëgg ko jëmal xëy ne des fois ci ci réew mu mel ni Sénégal mm-hmm. xam nga mooy li ñuy wax rek xam nga bu fekkente ne euh, am nga regard boo yaatu. Mhm. ci enjeu yi nekk ci société yi ci jamono mondialisation. Mhm. Euh, di nga gis ne ñoom am na am na am am na ci benn logique bu ñu nekk. logique. waaw dafa am ci benn logique bu ñu nekk mën nga ne sax am na am na ci benn calendrier boo xamante ne. ñoom. ci lañ nekk. kon ñoom dafa ci lu ñu tënku peut-être. waaw waaw déedéet duñ duñ duñ duñ ko fesal mhm. duñ ko fësal. Mhm. ndax xam nga man damay wax ne bu nekkoonte ne woon ne tey jii réew mi. Mhm. xam nañ dëgg dëgg dëgg suñu féministes yi. biñ demee Maputo teewal fa Sénégal. yañ fa ratifié. ñoom. yañ fa ratifié. doon na neex torop ñu ñëw ci plateau télévision yi toog ñu xam ñoom lan lañ ratifié Maputo jamono yooyu mhm. xëj na ay saydaa yu ñu doon jàngalekat yarkat waarekat yu ñu doon mhm. ñu ngi am rek confiance ci ne ñun kat suñu réew am nañ suñu élite intellectuelle boo xamante ne mhm. Sénégal jàngal na leen yar leen seen étude supérieure mu fayal leen ko génne leen sax ba bitim réew ñenn ñi ñu dellu si ñu takkal leen ay ndomba tànk kon li ñuy rafet njort mooy ne fu ñu mënte taxaw mm-hmm. lépp loo xam ne ñu ngi koy def lépp lu ñu ratifié wala lépp loo xamante ne ñu ngi koy xeex seen askan mooy tax ñu di ko def mm-hmm. waaye du doon au nom de ay lebeek ay financement occulte yoo xamante ne dana la jaral nga jaay sa askan la il faut ñu delluwaat ci fondamentaux parce que féministes yi mm-hmm. xam nga bu dee jigéen yu gàtt xel yi dañuy defee ne dañ leen a libéré. Hmm. Hmm. dañu libéré jigéen ñi. Hmm. ndax lan la ñuy wax autonomisation. mooy baat bi gën a bari lu muy dellu si seen temu 8 mars yi sax. baat gën a bari lu muy dellu si nga dégg autonomisation. autonomisation mooy lan. autonomisation mooy lu dagg loo xamante ne fi mu ne dara yëlifatu la dara yeewatu la. ku autonome. waaw lu autonome moom mooy loo xam ne yow dara. am nga liberté am nga pureté am nga. dara yeewatu. Mhm. boo boo boo. dara tënku la daal ci gàttal.